lii waraloon ndaje bi tey mooy ne ARTP depuis quelques mois dafa lancer stratégie bu bees stratégie bi nag dafa tegu ci jëndu ay jumtukaay yu bees tek ay matuwaay yu bees di wax ak askan wi di xol opérateur yi aussi ndegam ñu ngi def réseau yi fépp fi ñu nekk ñu ñëw fi andi résultats yi woon ko nit ni nit gis nañ ne réseau yi baxul maintenant li ciy top assez rapidement nit ñi dinañ ko xam parce que li ciy top moy continuer wax ak opérateur yi parce que opérateur yi ñun bëgg nañ ñuy am xaliss mais il faut ñuy investir parce que réseau bu ñaké rek moy ne investissement amul dañu bëgg ñuy investir pour que bépp Sénégal sénégalais fépp fu mu nekk mu mën a jot ci réseau bi ni mu ko waree. problème mu réseau ci frontière yi ARTP commence tàmbale woon na waxtaan ak euh, yeneen régulateur yi nga xam ne ñoo nekk euh, ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër Sénégal muy Mauritanie muy Mali muy Guinée muy Guinée-Bissau li freiné woon suñu démarche mooy Covid bi waaye assez rapidement incha allah dinañ ci am ay ay résultats yu bees.